xamal leen fi ñu taxaw man ni loolu man démb laa koy doog a gis li nga xam ni moom la Brescia am man gisaguma ko fenn ndax wut nañ fi salle UNESCO wut nañ fi palais des congrès waaye bu ci nekk ay daanu ko tey ëpp ca saal ba dañuy wax ci sëñ bi di daanu waaye démb lii ngeen am kilifa yi taxaw tubaab bi toog di déglu conférence bi déglu sëriñ italien bi comprendre ñëpp kenn génnuñu ñu koy dogal kon nag yal na leen sëriñ

أكافي أكافي علي أنت فإني إلى قومي أوفوا بحبا لربي حديث مزوري بلادها على جيت الإذا فيديهم لو جل شكري بحمدي وكان وليران أهداه مع جانبي حسبا نجوت بذكر الله من قلبة الغدا وليرانهم ترا حرم الجنة أفاتني الحنان بالكيد من خلا نار للخل للباب ما ينبع بدادي وأقلامي ولو وكرت عليه وجدني بمن والوهبا نويت له شكرا كثيرا كما هما جنابي واستغفر يوم الجوال هما له جل شكري هداني ببله وجاه الذي ملي لا ak dund wala Sëriñ Tuubaa moo tax ñëpp wuyu kon ñu ngi sant mboolem ku lu mu jigéen lu mu sori sori ak boo xam ne jël na ci si boobu sax ci daay kon cant gi matale na ñëpp amuñu seen xel na loolu ñu ngi sant bu baax ci waral bis moo baax moom laa war a ci taxawaayam ak ci bëgg lu baax lu baax ak ci bëgg loo dimbali ak ci bëgg islaam ak di ko masawu bu baax ci coono yi ñi nga xam ne moom la mu wajur mu sell wax bàyyi leen te mu yàq lislaam yàlla na ko suñu borom oyofalal te may ko gudd fan ak bu wér ak njabootam yëpp ak mboolem taalibe yi tam ci ginnaawam yëpp mooy ministère bi nga xam ni moom la fekk suñu mbokku taale bi suñu lépp Abdoulaye Wade yebal teew na fi ak délégation bu yaatu bu mu àndal yi tamit délégation boobu bokk na ci e, ki nga xam ni mooy Cissé Lo nga xam ni kenn la ci député assemblée nationale moo la Macky Sall yebal ak délégation xam ni bu yaatu bu mu àndal ak mboolem ñeneen ñi nga xam ni yow nii ak nag ambassadeur bi nga xam ne moo ma ñu teewal fii ci état état bu Sénégal ak itam ki nga xam ne mooy Abdou Dahab Sourang nga xam ne mooy commencé bi nekk Milan ak mboolem ñu seen xel liggéey ñu ngi leen di sant leen gërëm xam ni amuñu seen fay yàlla leen yàlla fay yàlla ñu suñu tubaab fay ci di ko mën Mashiach, não dá tempo ñu tàggoo Moussa Abdou Moussa daal ak Serigne Sarr ak njaboot bi yëpp ñu ngi fi waa kër xaalis mbokku yëpp ñu ngi fi Mbacke soxna ni gànnaar monsieur Moussa Sallem Mbacke mi ngi fi soxna Maam Fadi Mbacke monsieur Moussa Sallem Mbacke mi ngi fi ñoom ñëpp dinañ toog ak soxna Assou Moussa Abdou Moussa daal ak mbokk yi mbokk yooyu ñoo la fekk ci ministre bi nag doo ko ñëw ànd ak délégation bu am solo. Amen. سراچار پہ کسی کو پھسل سداچار

مبار المعشوق بكل طريق سيم بكشف الطرق النسير يدوس بين افتخار بهم أرام على ما هدى أبا دخول الكفيلة حبيبنا تؤتنا بكل سبيل ونار مفهوم تدعونا على خير ما في الأولى إذ المجتمع قد تفادي رجوع حبيب ابتداء لبحر لنا جزيلا سجايا हरी पोशाल सजाया खिला sama yaram ndaw na lool sëñ yàlla Cheikh Abdourahmane Mbacké bu Cheikh Gaynde Fatma bu Cheikh Moustapha Mbacké sa toogaay bi am na lool lu muy def ci sëriñ bi wax école bu mag bi mu liggéey ñu ne Cheikh Abdou Moustapha ci ngaay di ko ñëpp songee dafa ñu sàmm ju baax kon sàmm ju baax ja daa ko tuddee Cheikh Gaynde Fatma moo nekk moo nekk moo nekk ngaay sëriñ Sakko mu Cheikh Abdou Moustapha ak Serigne Sarr ak njaboot bi yépp ñu waa kër Xaadimu Rasuul yépp ñu ngi fi Mbakke soxna mi gànnaar monsieur Mat Fadal Mbakke mi ngi fi soxna Maam Fati Mbakke monsieur Mat Fadal Mbakke mi ngi fi ñoom ñëpp ci lañu toog ak soxna Asu monsieur Amadou Moustapha ak mbokk yooyu ñoo la fekk fii ministre bi nag a ñëw ànd ak délégation bu am maamam bi Mawlo lu doon xaaj Mawlo moo tax moo ñëw ànd ak Cheikh Sadou Sall waaye